asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yëpp di leen sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di nuyu sama maman yi nga jàkkaarloo tey di leen sargal ci mois de mars bi ñu nekk di nuyu conseil yi toog fii yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal ñoom it nga xam ne dañuy yàgg seen biir le Sénégal di nuyu les présidents qui sont présents li nuyu madame la présidente Marie di nuyu association bi yëpp di rafetlu di seen journée bii ngeen taxawal tey ndax euh, Sénégal mënuñoo wax te te sàrgaluñu suñu homme de tenue yi ndax luy njëg jaar ñoom la ndax tey su réew mi amee stabilité joué nañ ci rôle bu am solo. bu ñuy te tey jii suñu kaw lal yi di nelaw ba yàndoon ñoom ñuy def ñuy joué rôle bu am solo kon sàrgal leen ñun daf ñuy wax en tant que doomu Sénégal li leen dal nag jarul sax ñu ci ñëwaat ndax dafay am lu muy yeewaat ci xol yi ñëpp xam nañ ko gis nañ ko fekkee nañ ko bien vrai que 13 avril 1940 xam naa ci yu bëree bëri ndax yàlla dogal na maa ngi assemblée nationale maa ngi gis ay archives te ku xam na ne tamit euh, réseaux sociaux yeeg lépp ñu ngi ci liggéey liggéey ba am bi ngeen ci taxaw taxawaay am solo boobu tax na ba dafa édifier ñëpp ba ñun ñëpp ñu xam réalité problème bi dëgg la metti na quatre-vingt-sept ba léegi surtout ci jigéen bi ak njaboot gi amoon benn train de vie boo tàmmoon jékki-jékki rek ñooñu ñëpp parce que ku ci nekk na nga koy xool ci sa bopp ngeen toog di ñu ngi doon plaider pour yéen seen cause yaakaar naa ne ngeen buggee ci internet war ngeen koo gis takku uniquement pour xeexle leen ba gis nañu président Macky Sall effort yëpp di def ba génn deux milliards dugal ko ci FNR bi mooy fond pour retraite kon yaakaar naa ne loolu dëgg la bari na bariwul waaye jéego la 2013 ñu dugal leen police municipale ba 2000 ngeen di jóg ko daan 2010 ba 2000 2018 ndax lii dafa bokk ci histoire Sénégal kenn mën na wax Sénégal la dugg ñu leen ci kon tey bu amee ay jigéen yu mel ni yéen jàmbaare nar a taxawal association bu mel nii ñu ne ñenn ñoo koy taxawal ñu ne jàppoo ko police municipal yooyu vraiment seen dem moo monopolisé nag parole bi ma ko yemal fii rek di leen ñaan yàlla rek lépp lu ngeen ci seen ak lépp lu ngeen ci jublu suñu borom defal leen ko barke Seydina Muhammad